ñu jaajëfal leen bu baax si teewlu gi ngeen di teewlu seen seen bii di Leral seen dal leen ak jàmm ñu wax si ki nga xamante ni moo di Amadou Ba nekk premier ministre waaye yor tamit ministre bi nga xamante ni mooy ministre de sport ak ministre bi nga xamante ni mooy ministre de élevage ginnaaw bi nga xamante ni ko yor tekki woon nañ seen ndombal tànk. kii di Amadou Ba nag ginnaaw bi nga xamante ni kii di président Macky Sall wax na ne du bokk si élection présidentielle yi ñu dëgmal xel yu bari nak ñi nga xamanteni ñu parti bi di APR kii di Amadou Ba daal daj wala moom daal lañu ñu jeex a moom la président Macky Sall nara tabu mu nekk numéro 2 wala mu nekk candidat bi nga xamanteni ni moom la APR di jiital ak benn bokk yaakaar waaye émission bi nga xamanteni doon na ko def ak Ndour Fay foofee sa set tv ki nga xamanteni ni moo di Amadou Ba lu mu tontu daal leen rek la mooy daal ñëpp nañu ànd ak nañu ah, nañuy xaar ki nga xamante ni mooy joxe ndigal ba mu joxe ndigal ba noppi comme ni ko sëriñ Mountakha doon waxee nañ ñëpp xaar ndigal moom moomee di Amadou Ba noonu la ko waxee nag ña xaar ndigal ba ki nga xamante ni moo war a falaate ki nga xamante ni moo ko fa war a wutu wax ba noppi ku si nekk daal di wax. waaye ni ñuy waxee nii dina indi li nga xamante ni moo di féewulu si biir li nga xamante ni moo di parti bi parce que seetlu nañ ko fan yële si ginnaaw si digganteem moom ak ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Diouf Sarr si benn daje boo xamante ni waroon nañ ko amal si pëcc xool la mujjoon.